لآقذ هذا الورد سالكيه من ناله نال أجرا غير ممنون غلبان بشرى بشرى لأخي ذي هذا الورد سالكيه من ناله نال أجرا غير ممنون خلفان بشرى لأخي ذي هذا الورد سالكيه من ناله نال أجرا غير ممنون بيت الولاية مصباح ولامه ومفتاح الكنوز وختم الكل ألف بين بشرى لآخذها هذا الورد سالكي من نالو نال أجرا خير ممنون شمس المعارف تاج العارفين ومن يحوي الفضائل نجل طه ياسين بشرى لأخي هذا الورد سالكي من ناله نال أجرا خير مقدول خليفة الخير والمختار من مضر سر السريرة سلطان السلام خليفة بشرى لي هذا الورد سالكي من ناله نال أجرا خير ممنول رئيس أهل الهدى والبر فرقهم شيخ المشايخ في الإسلام والدين بشرى لأخي في هذا الورد سالكي من نالون على أجرا خير مقلول ناله نال أجرا غير ممنون من ناله نال أجرا غير ممنون ولفان من ناله نال أجرا غير ممنون من ناله نال أجرا غير ممنون إن القصيدة هذه من مريد أبي الفيض الإله أبي بكر آخره من ناله نال أجرا غير ممنون من ناله نال أجرا غير ممنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin anzala kitaabahu alkarim basairan linnaasi wa hudan wa rahmatan li qawmin yuqinuun yahdi ila alxaqi wa ila tariqi mustaqim wa sallallahu wa sallama wa baaraka ala akrami wa afdali wa ahabil xalqi ila allahi subhanahu wa taala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man iqtada wa man iqtafa wahtada bi hadihi ila yawmi din fadilat alcheikh ixwani fi llahi lillahi wa ila allah aqulu niyabatan anhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi ku jaaxle ngi ni di wax ak yéen ndax laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi te wóor na leen itam al ulamaa warasatul anbiya toog gi ma toog ak moom ni ci kaw sax lu diis la ndax tariqa mayuma ko xaqiqa it mayuma ko waaye ci mbaaxam ak ci bañ a teggi waxam moo tax ma toog waaye fii ma toog tey pour ma wax diis na ci man lool ndax lu ko yàlla jox la turandoom daf ma mës a wax yónni ma keroog maa ngi ànd ak mbay donde moom mii mu yónni ma maa ngi ànd ak mbay donde dem ci kër kii jóob ci pikin ma fàtte nu tuddati sax euh, waa ji jóob daam jóob yàgg na ma dem waxtaan wa xëy na ñoom ñu kontaan mu kon ñu kontaan ci mbay doon na ñëw ci man di di ma seet si pour gërëm ma far fekk ma ca góor ga muy Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz mbay doon na wax ba pare góor gi ni ma sëriñ Babacar ma ni ko labbay ko mu ne amuloo sens sëñ Abdoul Aziz mag na la ba pare lu mu la sant danga ko war a def kooku moom ngërëm am na ci mënatoo fexe ba mag wax boobu nag ba tey mu ngi ci sama nopp di dal kon nag bu toogee ni ma naa wax dana diis ci man lool bañ a wax it weddi kàddoom la waaye bu ma sañoon ñu wax mu wax ba pare rek mu tàllal ñu ñaan ñun ñëpp dem ndax yàgg ne ko ak ñun yàgge ko toog ak ñun noonu muy waxe ngeen di taataan waxam di ko jëriñoo noonu laa bëgg a jëriñoo waxam ndax ku la mag ci dara ëpp la cay sagar te diina ji ak bokk gi ak xam-xam bi ak lépp fa tabaarakallah ñun ñëpp ñoo bokk ànd tudde ko al ni yonent bi nekkoon amin ba nekk aminullahi noonu la nekkee amin ba nekk aminul usrati te lépp la matal fii mu toll nii ba tey mu ngi dem ak pas-pas waaye kattan ak doole mayatu ko waaye pas-pas rek a koy yóbbu kon bu toogee tooyatam ni naa yëkkati kàddu dana xaw jaaxle tuuti fa tabaarakallah sunu kilifa ñun ñëpp nag waaye man moom mooy sama kilifa tabaarakallah yal na yàlla dolli tawfiq yal na ko fi yàlla yàgg bàyyi bàyyi fi ay magam yàlla dool yi ko sutura mu yàgg ak ñun lool sunu borom mën na ko turandoom daan na wax ba faaw munta am waaye ba mu yàgg mën naa am yàlla dem ba may ko téeméeri at yu tegal ndax toog na keroog Cees benn mag xaw ma ko woon ma toog moom li ma toog ak moom yépp mu toog ba si àgg ba ma waxee ba pare mu ne ma sa maam de 1908 moo ma jàngal daaliya te mu ngee dem ba tey ak kàttanam tabaarakallaahu kon yàlla la yàlla may ak sunu mag Cheikh Ahmed Tidiane lu ëpp loolu yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla la ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ndigal ñu wax tuuti rek jox ko mu tëjal ñu ndax mooy sunu lépp ci kenn rek lañu am ñun ñëpp kii tëdd fii moom la amoon léppam ci yonent bi la ko def baayam it léppam ci yonent bi la ko def ay rakkam léppam ci yonent bi lañ ko def moo taxoon lu ñu xool yàlla xool ko la yonent bi waxoon benn waay dafa bind ni sidna Muhammad lam yaish li nafsihi innama aasha lillahi subhanahu wa taala yonent bi dundul pour boppam dafa dundoon te yàlla tax ba ñu demee ba ca biir ya yëg nañu ni yàlla nangul na ko loolu di ko wax ni mënoo ko wax waaye waxal ma njaboot gi qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina la sharika lahu wa bi dalika umirtu yàlla ko ko seedeel ba nga xamee ne dundul lu dul yàlla doxul lu dul yàlla bi waa ji waxee loolu mu ne ku dellu ci alquran gis loolu moo tax mu ne ka zikru sayduna muhammad ku koy def rek mooy quraanun yutla wa sunnatun yuqtada bi aw tuqtada bi yuqtada bi mu ne sayduna muhammad foo ko séene muy dem rek alquran la ak sunna kon ñun ñëpp tabarakallahu ni mu wax ñëw ñëpp ñëwati nañu ni ko maamam daan waxe ni benn dëgg genn dëgg fi nekk al alxaqu la yataaddadu te alxaqu axaqu an yuttaba afa man yahdi ila alxaqi axaqu an yuttaba amat laa yahdi ki teg nit ñi ci yoonu dëgg moom lañu ñu war a topp wala ki nga xam ni du teg nit ñi ci yoonu dëgg dëgg du ñaar mukk mag ñi nag ñoo daan am say wax mag mi waxoo dëgg ñu daan ko wax ni wax nga sa dëgg wax nga dëgg ak wax nga sa dëgg nag am na différence moom la turba tukulóor yi di wax naan gonga e gonga ma wana góotum ah wax nga sa dëgg ak wax nga dëgg du benn wax nga sa dëgg bu ñu la ko waxee rek rus nañ laa wax ni li nga wax du dëgg waaye yow rek yaa ko féete woon nag moom la maamam mu ne maamam ko maamam genn dëgg rek la amoon te dëgg gi mooy dëggug yàlla ñoom ñëpp ñu far ci jaar moo tax baayam ba Cheikh Al Hadj Mansour daan na wax ni ala innama al amalu bi sabri wa tuqa waaye wala taltafit ñu ne ko lu tax mu ne inna al karima gayuru gor day fiir ca la ko tax a jóg gor du dox mukk bañ ni ko hey mu taxaw liggéey su mbaa muy xaare li ko tax a jóg dem ci ku lay dab dab la ci yoon wi moom moom la waxaat léegi fa tabaarakallaahu benn waay bind ni kenn rekk fi ne kun waaxidan li waaxidin ala tariqin waaxid nekkal benn jaam pour benn buur te tegu ci wenn yoon inna hada siraati fattabiuhu wala tattabiu subula fatafaraqa bikum an sabilihi kon ñun ñëpp bu ñu toppee rek gurguri ci seen ginnaaw te bu ñu tegee teggee tànk ñu teg roy ci seen jikko ndax jikko lenn ci lañuy ñuy reye nit yare nit comme li sayduna muhammad waxoon rabbihi saban wa addibhu saban wa saaxibhu saban yar ko juróom-ñaari at jàngal ko teggin juróom-ñaari at accompagné ko juróom-ñaari at muy ñaata ñaar fukki at ak benn mu ngi ànd ak ñun guddeeg bëccëg ci dal ci teey kooku dañ koy xool noonu la rasulillahi meloon bu ko defee nag waxtaan wi yépp ci loolu rek lañ koy tënk yàlla wàcce alquran moo tax ku bëgg a xam sayyiduna muhammad il faut que nga jàng alquran mag ñi li tax Seydil Hadji Malick tàmbalee ko ca bopp ba ba Seyd ba Seydina Muhammad nekkagul lu dul ak leer fa mu ko tàmbalee ba bi muy judd ba bi muy nàmp ba lépp di am daf ko dafa dégg alquran moo tax ndax habli min as-saalihiina ak habli min ladunka waliyan yarisu ni du benn habli min as-saalihiin ak habli min ladunka waliyan yarisuni abna la min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina ñett yi benn bokk ceeg sa morom habli min as-salihina moom la njabootu Seydi noonu la Seydi njabootu Seydi Hadj Malick juddoo maam di Hadj Malick waxul woon rek yàlla may ma njaboot gu baax dafa ni ñi nga defar ba pare jox ma ci ñooñu laa soxla moom la moom la sunu maam Ibrahima ñaan. habli mina saalihin mooy ba doom ja juddoo ba nga xam ni toll na diggante yàlla di ko wan ni ku baax laa la may daal di koy wan benn ruya waaw yaa bunayya inni araa fil manaami anni azbahuka fanzur maazaa taraa qaala yaa abati if'al maa tu'mar satajidunii inshaa allahu mina saabiriin yàlla nga koy wan ni ko doom ju baax laa la may doom ju dëgër doom ju tegu ci yoon doom ju gëm yàlla laa la may di ñaan lenn ba am ko dem ba tëdd guddi gént ñu gént ni la rendil sa doom nga ñëw ci doom ji ni ko man kat dama tëdd bi gént di la rendi mu ne ko yàlla kooku mu ne ko bàyyi kooku ndigal la defal lañ la génn diñ la dénk dina di ma fekk insha allahu ma bokk ci mu oy muñ yi kon kooku doom ju baax la ko yàlla jox doom ju baax yooyu nag moom la Seex Al am njabootam yëpp yëpp ci loolu la ñu dudd ndax li lim naan li ñuy wax naan huwa allahu alxaaliqu albaariu almusawiru lahu alasmaau alxusna allahuma sawir lii fi batni hadihi almarata man yacbuduka wa yuwaxiduka ñoom loolu dañ daan ñaan di ñaan yàlla ku baax koo xam ne kii day ñëw fekk mbiram yépp sotti na moom la ki ngeen doon woy léegi Cheikh Ahmad Tijaani Chérif judd toll ci juróom-ñaari at mokkal alquran am na fu mu tàmbalee moo tax ñuy julli ci sayyidina muhammad moom la yàlla tànn def ko muy royuwaay moo tax seen maam ja dégg naa daan na wax ni Cheikhna Ahmad Tidiane day mooy sama royuwaay waaye yàlla nee na naarooy roy sayyidina muhammad moo tax jullit bu ci sàggan bay yam ci bien boo perdre amuloo assez bien xamulooy am jullit toujours day dem ci wax day dem ci trait waqulu linnaasi xusnan booba ñëpp a ngi fi jullit yeeg ku dul jullitayam waaye bu dee seen biir rek waqul li ibaadi yaqulu lati hiya kon ñu ngi am mbégte bu baax di nuyu sunu sëriñ bi bu baax a baax a baax am mbégte it ci jataay bi ñu yàlla xéewale tey ñu bokk ko ñun ñëpp ci kanam góor gu tedd gile ñëpp xam ko nag ñépp xam ko ci xam-xam ci wilaaya ci leer waaye taxu rek mu ne هذا عبيدك عند الباب يقرأ وليس يعلمه إلا أنت من حاه ñun ñëpp kenn ku ci nekk xam ngeen ni sëñ Babacar àgg na fu mu bëgg àgg waaye wàcc ba tolloog ñun rek bi ñu wan ni fii mooy yoon wi escalier escalier escalier escalier ba ngay àgg fa nga war a àgg waaye tëb tëb rek àgg ñoom yàlla may na leen kon ci seen jaamu yàlla waaye ñu dellu wàccaat ba tolloog nit ñi pour yóbbaale leen moo tax Seydina Muhammad ndax amoon nay at ci mission amul woon ay at ci mission maas gu mu tolloo rek dana waxtaan ak yow ba delloo la ci diine ñi am ñaar ñi ñaar fukki at ñi am fanweeri at noonu la yonent bi doon doxee dundam moo tax amul woon at ci mission bi dëgg la amoon na juróom benn yu tegal mais amul woon at ci mission bi bu jigéen ñi ñëwee toog fële mu wax leen bu ñi xamul dara toog fii mu wax leen dem bay ànd ak ñoom di lekk ak di naan yépp pour teg nit ñi ci yoon maa li hada rasuli yaakulu taama wa yamshi waaw yooyu yëpp jubbanti nit ñee taxoon moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te guddi gi nag mbokk yi njëriñi kese la guddi gi njëriñi kese la ku ko yëgul rek yaa ko yëgul lépp nag yàlla def ko pour ñu rey ci sayduna muhammad jox ko xàqam bu baax a baax ci fàttaliku ko waxtu xew jotee gàmmu yi bari na bii def ci raw nag la la la la la la cheikh alxaaji malik waxoon rek fa mawliduhu bihi sharafun ba ci yawmun summa شهر ثم عام ثم شهر ثم يوم مودا أتى فيه الهدى قرن الخروج مودا سرور في سرور في سرور وعينا وعيد دون أعياد الغيوب مودا ربيع وثنا في شهير وعينا بعام الفيل يوما بعد نور ولدوا بي شرف وخير عاف في تعظيمي انجاح شجوني bis bi waxtu wi weer wi at bi yépp feet la ci jullit dañ ko war a def di ko def ci def ci salaatu ala nabi di julli ci yonent bi bu baax a baax a baax la mu wax ni man salla alayya sallallahu alayhi ashra marra ku julli benn man salla alayya marratan waxida sallallahu alayhi ashara marra ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon fukki yàlla nu muy toll kon waruñoo jóg mukk làmmiñ yi dafa war di tooy toujours ci julli ci Seydina Muhammad ci waxtu yépp nag tey nag ma toog fi sama sëriñ sama kilifa sama lépp mu ñuy fàttali kan mooy Seydina Muhammad ba ñu mën koo nattale ak jamono bii ñuy dund lu taxoon yonent bi ñëw pour génne nit ñi ci njaam goreel leen ci buum yépp nga xam ni dootuñu ragal kudul yàlla loola taxoon Seydina Muhammad ñëw dini nit yépp ci jikko yu bon ndax innama bu'istu li ma yooyu yépp dafa war a am mu dañ ci jullit yi ba set ñu dem ba ci yéeféer yi ba set booba lu tuutee fi nekkoon ci jullit waaye mu ñëw di ko def ndànk ndànk di ko def ndànk ndànk ba Sénégal toll ci quatre-vingt-quinze pour cent ñu ne sonde liggéeyu mag ñi la bu ñu toppoon ci tànku mag ñi du am benn bayaal bu nit mën a sampee leneen lu dul lislaam waaye nag xaw nañoo sàggan tuuti ba tax na ñu baree gi dugg ci biir di samp ay mbir ba ci Tiwaawan gi sampoon nañ fi benn mbir moo xam ne indi na fi coow ñun ñoo melul ni mag ña bu ñu jaaroon ci seen tànk rek lépp sotti ndax sunu borom moo wax ni alladina amanu wattabaathum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay yàlla du wax du ci génn waaye ku def a tax muy wax waaye waxul ku ñëw rek korose say loxo euh, papaam dafa ma sa wax benn bis turandoom fu waxee rek ma ne incha allah mu ne ma sëñ Babacar incha allah madda ga ñu bari ñi tayal ñëpp ci madda gi la ñu tëdd loo wax ñu ne la incha allah nee na yëngu ba pare ni incha allah waaye tëdd rek naan incha allah sotalul dara kon guddi gi sunu mag ji dafa woote ñun ñëpp ñu toog fi pour mu fàttali ñu kan mooy Seyduna Muhammad ñu fàttaliku ko ci biir bu baax a baax ñuy gàmmu nag ci juddu bi lañuy gàmm wala ci mission bi lañuy gàmm mission bi moo ñu tax a jóg kon juddu bi taxuñoo jóg risaala la bu ko yàlla teg ci loxoom pour mu jotal ko nit ñëpp defar ko kon kenn ku nekk tey ci ñun war ngaa fàttaliku kan mooy rasulillahi waaye du ci juddu ci mission mu ñëw nag mottali bépp risaala bu ñuy tuddee risaala islam wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana faabuduni waaw yonent bu mës ñëw rek da wax ni yàlla kenn la jaamu leen ko yow nag nga ñëw collecter lépp feddliwaat loolu pour ñëpp delloowaat jox yàlla buum moo tax papam Mansour di wax ni ayarda adibun an yakuna li gayrihi mutian wa yastaxyi bi dalika shakuru ndax ki ñu naan intellectuel la ci domaine bu mu doon ndax dana bëgg di topp koo xam ne ki xamul fu mu jëm wóorul moo tax mu ne kun abdan li mawlaaka tastarix nekkal jaamu yàlla di nga noppalu mina diini wa dunia siwaahu yabuuru lu du loolu perte la mu ne araaka ida ma kunta taxtaaru xayrahu takun abda xayrin fa dalaalu jadiiru boo fi toppee nit ku dul yàlla dina la liggéey la ba dee ba nga dee te doo am yàlla doo am dara ci saaduna moo tax topp yàlla rek moo tax mag ñi ku ñu mës uuf dañ laa nawloo mu ngi nii mu ngi bokk ak ñun oto mu ngi bokk ak ñun lekk toog di naan ak ñun di kafak ak ñun di bi muy wàcc ci escalier yi nit ñaa ngi boo xante moom wàcc la waaye nag ñu ngi gaañ suñu bopp ñu ngi gaañ suñu bopp du leen wax mukk yam leen fii waaye am na fu ñu tariqa bi yamloo du leen wax mukk duñu ko duma ko wax du waaye ñun ñooy xam ni kii kat wàcc na jox nañu cër waaye nañ ko jox xorma moo tax ñu bari ñu bari ñu bari war nañoo yeesu demee ci surutu tariqati dëgg-dëgg man ni ma gisee nii ñuy àndeek moom war nañoo yeeslu ci moom koo xam ne kii benn yoon rek nga ko war a jiitu mooy guddi goo xam ne gi lëndëm na nga jiitu ko benn yoon rek nga war a yëkkati kàddu bu la laajee te foo tollu yëkkati sa kàddu ci noppam wala muy dox nga téye ko di ko waxloo ci mbedd bi yooyu yëpp buñ delloo ci sa surutu tariqati tijaniya bokk ci moo tax ñun ñëpp kenn ku ci nekk war nga xëy wéet ak moom tàllal ko loxo mu yeesalaat la nga baalu du ñu wax kenn dara waaye li yàlla wax laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an taxbata amalukum wa antum waaw yaa ngi fekk yaa ngi yàqule te yëguloo ne yaa ngi yàqule mag Pape Makhtar Kébé dañu mas def dara ñëw ci sa ci sa turandoo di ko baalu xaq mu ne ah li ma moomal sama bopp de baal naa leen ko waaye li yàlla def ci man nag yàllaa ko moomal boppam te mu ne wa man aada fa yantaqimu llahu minhu kon ñoom am nañu kersa ci jamale nit waaye ñun ci suñu bopp ñoo war am fu ñu yam koo xam ni kii dañuy wax nit euh, taalibe nu mu war a mel amaama cheikh yi ci kanamu sëriñam nan la taalibe war a mel kalma yiti danga war a mel ni néew bu ñuy sang néew bu ñuy sang du yëkkat du yëngu fenn dañ koy yëngale waaye boo toogee ci sa kanamu sëriñ gën koo bari coow bu doxee ci mbedd bi nga dogaale ko téye loxoom di déy moom di ree moom muy ree te yaa ngay gaañu ngeen baal ma xàq kooku ba entre kii rek la woon ma ma bokk ko fi ah. ba tax na kon yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel yonent bi yàllaa ko waajal waajal ko ci anam yëpp waaw yàllaa ko waajal ci rab rabbi fa ahsana ta'dibi yàllaa ma yar rafetal yar gi moo tax bépp bépp mbir mu nit di dox ci àdduna yàlla def na ko ci sayyiduna muhammad moo tax toog gii ñu toog di waxtaane sayduna muhammad nañu am yaqin taam bu dog ñu ni ñun ñu ngi jàng al alquran fi mu toll nii ñu ngi ci yoonu alquran moo tax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam coow bari na léegi coow bari na lool lool ambiyaaw yi bari nañu lool lool lool waaye mbokk yi nañ déggoo ak yàlla te topp yàlla moom ak am solo dañuy wax ni kalimatullahi hiya al kalimatu alladina kafaru ñun fa sunu kalima nekk ak ah, ñun ñoo ànd ak yàlla bi baatu yàlla nga ca kaw baatu yéefar yaa ngi ci suuf ñun sunu baat fu mu nekk ah atte bi yàlla fu mu nekk ah man kañ man yéen laa koy laaj ci yéen ñii ma janoon waaye waxuma fii waaye yéen ñii ma janoon baatu yàllaa nga ca kaw di flotte te du wàcc mukk te kenn mënu koo jotati baatu yéefar yaa ngi ci suuf du mës a jóg ñun ñun gëm yàlla fu sunu baat toll ci lan la ñu sukkandiku di ci àtte woo ah ah buñ doon attewoo alxuraan kon kon sunu sunu kàddoo nga ca waaye li tax li tax li tax ñu ëpp ñu ëpp fii te mu mel ni amuñu kàddu mel ni ka asfin makul yàlla ñu yàlla boole jàppale mag ñi nag gëmoon diine lool xam ni diine rekk a fi nekk lu dul diine du dara kenn du leen tax a jaay seen ngor gëm diine cent pour cent nit ku ñëw fekk leen ci ñuy jaamu yàlla it doo leen yëngal waaye ñun ku yëngu ñu yëngu góor gi seet leen ci sama dégg-dégg bala daan tijji onze heures jot jëm di jëm yooyu te bu demee ba julli ta tisbaar jot ñëpp dem liggéey yi mu tëjaat déggam nekk ci yàlla ba waxtu tàkkusaan jot mag ñu wàcc ci seen marché dem jóge ci liggéey kenn ku nekk jóge ci ñu mu recevoir leen bu timis dee jot jëpp dem jàkka ja ñun nag ñu toogaanu leen mayu leen fu ñu wérde mayu ñu leen fu ñu jullee mayu ñu leen dara moo tax mag ñi salafu salih dañoo dund lislaam dañu dund lislaam dëgg-dëgg bàyyiwuñ ci dara bàyyiwuñ ci dara dara ëpp luñ ci bàyyiwuñ ci dara lépp lu ñu bëggoon nag yàlla defal na leen ko ba ñu mujj nekk abdan rabbani kuunu rabbaaniyiina bi maa kuntum taalamuunal kitaaba wa bi maa kuntum tadrusuun kon alquran mooy jàngale mag ñépp noonu la ñu meloon ñu gëm nag yàlla di wut ngërëmal yàlla wutuñu ngërëmal keneen lu ñuy liggéeyal nit liggéeyuñu ko pour nit ki mais dañ koy defal yàlla ci nit ki noonu la mag ñu meloon dem ba bàyyi fi turas nag turas bu rëy man euh, euh, sëriñ bi damay wax ni ñun bu ñu sukkandikoon ci waxu mag ñi kon passé nañu fii passé nañu fii ba mu naan sabablu leen lu ko jiitu tarku tasabu bi mubiqul min su ima dëbbin sabab lu leen te bu leen nga gis ni kon tarku tasabbu bi bàyyi sabab lu ci liggéey ñàkkee teggin yàlla la mu dem ba ca biir mu ne man kaana xirfatin fal yuxiha moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla lu inna rajaa la fi man kaana xirfatin fal yuxyiha ah, ah. abadan moo gën sàggan dem ah, di tuumaal yàlla ak ak dëkk ya tarku tasab bu biqul min su ima adabin sabab lu leen dëbb leen sukkandikoo yëngu ya inna raja ala fi waadin kaza tama un del tegtaloo dara doore yaakaar daju alal ya waaye ñun dañuy def ictimaad ala rahma dañoo wéeru rek ci yërmande yàlla yaatu na koo wax mun la yër doo yàlla yërmande yàlla yaatu na waaye yàlla am na ku mu féete inna rahmati wasiat kulla shay fa sa aktubuha lilladina lilladina yattaqun kon yàlla cité yi ñi moom yërmande ci moom kon ñun ñëpp ñu war a jàpp bu baax a baax sëriñ Babacar bàyyi fu boobu turaas mu ne inna rajaa la fi waadin kaza tamaun deel tegtaloo dara soog a yaakaar da jóg alal ya rabbana atina ma waadtana ala rusulika wala tuxsina yawma alqiyama innaka la tuxliful miaada lu yàlla tontu fastajaaba lahum rabbuhum anni la udiu amala aamil tàllal loxo yàlla yàlla yàlla ni ah man kat ki ma mën a jëflanteel mooy kii sabab lu ba pare soog may tàllal loxo waaye toog naan yàlla yàlla yàlla sëñ Babacar nee na yàlla du la fa fekk. moo tax mu dem ba ca biir daru shikaayata yaa qawmi bila loxo ci bay daru shikaayata yaa qawmi bila amali te yaa qawmi bila amalin te bokk nu def defu sunuy ñaan ci mbir yi muy muy sabab ya nusallimul amra lil mawla al karim loolooy jariñ lu dul moom muy coono ak fitna ya mu ngoog bàyyi leen njàmbat li te liggéeyi maa ngi dégg keroog muy wax loolu wax ji bari na nañ noppi te liggéey maa ngi dégg loolu ci waxtaanam kon mag ñi seen œuvre yi ñu fi bàyyi yépp bu ñu ci doon dellu di ci sukkandiku kenn du am jotu toog dangay ngay dem liggéeyi bu wa bu julli jotee nga ñëw julli dem sa kër añu noppalu gontaat liggéeyi waaye xëy rek toog ci buntu jàkk di wax ba tisbaar jot. waaw. waaw. waaw kañ moo tax euh, nee na Serigne Cheikh nee yàlla bëgg naa dimbali kii ki toog waaye ki taxagu la xamul lu ko yàllay def kooku mooy li yàlla wax ni euh, wala xat karram naa ba ba bani aadam yàlla nee na maa teral doomu aadama jumtuwaay yi mu war a liggéeyee ci àdduna yëpp jox naa ko xel maa ngi fi xol baa ngi fi ruux baa ngi fi matière yaa ngi fi waaye nag ku liggéey la yàlla di xool moo tax mu ne wali kullin darajaatun mimma amilu wa yuti kulla di fadlin fadlahu wa an laysa lil insaani illa ma wa anna saayahu sawfa waaye toog korose say loxo naan yàlla baax na musiba la kon bu ñu sukkandiku woon ci bind mag ñi te moom li mu wax daf ko ji daf ko def liggéey na ba sonn daf daan liggéey ci lépp moom sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu ñaq na ba tàyyi te loolu rek la xamoon di ko dunde kon ñu bàyyiwaat xel loolu te moytu li nga xam ni dañuy wax ni dafa lëj bañ koy lijjanti ñun ñoo koy wax ñun ñoo ni alal kenn ko dañu koy wóorul te ñoom dërëm bu ñëw te xamuñu fu mu fu mu jógee duñ ko lekk mosuñoo lekk dërëm bo dërëm bu ñu xamul fu mu jóge ndax sàmmoonteeg sharia moom sëriñ Babacar mës naa waxtaan ak Cheikh Alhaji Abdoul Aziz mu di ma wax ni mu sàmmoonte ak sharia ba ci di ñuy recevoir léegi ba ci ni ñuy toogee ba ci yooyu yëpp da lenn lu ci nekk daf ko wutaloon waxtu nga xam ni benn temps du perdre te kenn du leen perdre loo benn temps it ndax jaaral na ci nit ñi ba nit ñi miin waaye ñëw toog ci buntu sëriñ koŋ koŋ koŋ in jita cheikhaka la taqara bal intadir fatxahu bida tanaalu rida rahmaani inna taadduba yakfi lmara bawaaba kon yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax nit ku nekk mën nga am jikko boo jël ci jikkoy Seydina Muhammad roy ko ca bu baax a baax ndax yàlla dafa dajale jikko yëpp ci ci ci ci jëmmi Seydina Muhammad Seydina Muhammad bàyyi la woon Seydina Muhammad boroom kër la woon. Seydina Muhammad père de famille la woon Seydina Muhammad dépensé na xalaatam dépensé alalam dépensé kattanam ci dimbale ay nit te yàlla doo nga tax kooku yëpp Seydina Muhammad def nañ ko Seydina Muhammad àndandoo bi gën ci àndandoo yi la woon xool leen ni mu àndal woon ak Seydina Aboubacarin Sadiq radiallahu taala anhu Seydina Muhammad yitti yitteem yëpp mooy yitte nit ñi misaal baa ngi nii li muy xëy di dox yépp yittee nit ñi la suba ak ngoon talatul boppam talatul njabootam mu ngi daw toujours toujours ci yittee nit ñi ci yittee nit ñi ci yittee nit ñi ba tey te waroon na wàcc waaye gëm na ni wax bu wa'bud rabbaka hattaa kër yaqiin yàlla na yéex ñu bareen ko naan noppalul noppalul bu noppaloo kon Seydina Muhammad politicien piir la woon waaye ba politique des politiques ba politique des politiques Seydina Mouhamed seen piir la woon léegi nag xamu politique lu mu doon Seydina Mouhamed da daan fekk réew mu tas mu dajale ñëpp def leen benn ba ñu nekk benn tabax nekk benn force nga xam ni ñoom ñëpp yaqifuuna waqfata rajulin waaxid li mu muwaajahati kulla taxaddiyaat allati tuhaddidu kiyaanal ummata al islaamiya lépp yonent bi daf ko daan def moom mii mu ngi nii ci la dëkk guddi ak bëccëg conférence yeeg tukki yeeg yii yëpp fu nekk ñu ngay defan dafay wuti dara li mu am doy na ko sëg koo xam ni kii fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu ba ngay xàmmee lañ la commencé di teral musuloo ñàkk dara xanaa yar yara leen téye woon ba ñoom melu ni ñu ñun dañ leen a yaroon ci comportement yar leen ci yorin du ñu tàllal kenn loxo ku ñu tàllal loxo rek xamal ni nit la ñuy dimbale noonu la Seydina Muhammad meloon nekk njiit nag njiit lu mat njiit njiit lu jàmbaare ku ñeme te du dellu ginnaaw ca la lañ ko jiital moo tax taxawaayu Seydina Muhammad ci wàll yépp nekk ci royuwaay nekk nit ku mat nag ci moom lañu xame mat ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax nit ku kiy topp di nga àgg ci fi nga bëgg àgg mbokk yi maa ngi arrêté fii sama wax jox sama sëriñ mu defaral ñu wax ci dama doon ubbi rek pour bañ a teggi waxam moom it dafa wax ni kilifaam moo wax kon du ko teggi man it mooy sama kilifa moo wax duma ko teggi kon ma bàyyi ko mu mottalil ñu waxtaan wi ndax fajar gaa ngi bëgg a jot maa ngi koy jéggalu bu baax nag si dem maa ngi jéggalu bu baax si. merci merci. merci Cheikh. gi moom jàmm. waaw waaw wax na jërëjëf ci loolu. am lu dul jeex. loo ca am rek doy na dund yonent bi du jeex du xaj parti boo ci jël mën nga ca dem ba nit ñëpp am ca liñ ca bëgg te booba parti du jeex waaye guddi gi lépp moo ko moom ñu di feete juddoom ci jamono boo xam ni askan wi mu ngi ci jéggi ci penku adduna bi ak sowu adduna bi ay jafeñ-jafeñ ak ay problème ak ay fitna mutaaddida ومتنوعة fidye yu bari te bari xeet yenn yi mu ngi jóge ci ñun yenn yi mi ngi jóge ci biti ci noonu lislaam yi mu ni nag askan wi suñu dévier wàcc yoonu njub dara mënatul yéwénal seen xaal lu dul li ko yéwénaloon bu jëkk moo tax woo ñi nekk ci fitna ñi nekk ci ay problème ñi leen taalaw ila hadi al islaami wal islaamu huwa al ñi leen di woon ni leen dellusi leen ci njubul islaam solution problème yi ñu am yépp mi ngi ci lislaam nee na ñu ngi aajowoo dellu ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak valeur yu kawe yi nga xam ni adduna bi du ko ñàkk soxla woo mukk ak état bu mu mën a ci état yi walla jamono bu ñu mën a toll ci jamono yi nee ndax nit nattu ba ñu koy natte ndax kawe na walla suufe na ci jikkoom la nekk su sa jikko kawe kawe nga su sa jikko suufe suufe nga nee mbooloo mu la jëkk gën a rafet jikko moo la féete kaw nee na comme ni ko amiru shuara waxe Shawqi fa innama al umamu al axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum dahabu nee na bu ñu dee wax nation jikko moo tax nee na nation bu ñàkk jikko nation nekkatu fa ay jëmm rekk fa nekk waaye nation amatu fa neena moo tax ñi ngi ci ni mu ko waxee moom sëriñ bi moom sëriñ Cheikh mu ni nañu fexe ba réaliser principe bu solidarité bu dëgg nag waxuñu solidarité fala bu réel nee na ci circonstances yu jafe yi ne solidarité dafa war diggante jullit yi li ko dale ca sommet ba ba ci base bi ak ci mboolam tolluwaay yi nee na solidarité bu dëggu diggante raïs wal mar'uus buur bi ak ka mu yilif wa bayna cheikhi wal murid diggante sëriñ ak taalibe wa bayna zawji wa zawja diggante jëkkër ak jabar wa bayna al ustaaz wa taalib diggante élève bi ak maître wa bayna tabibi wal marid diggante docteur bi ak aji feebar ji wa bayna al aamili wal maamul lahu diggante kii jëf ak kañuy jëfal bayna al walidi wal walad diggante baay ak doom wa bayna al kabiri wa saxiir diggante mag ak ndaw wa bayna al axi wa axi benn bu ci nekk boo ko seetee daa gis warante ci biir dañu gis ni président bi principe bu tadaamun réalisé tu ko digganteem ak ki mu yilif ki ñu yilif réalisé ko digganteem ak ki ko yilif diggante sëriñ bi ak taalibe bi boo ko seetee daa gis ni sëriñ bi réalisé ko digganteem ak taalibeem taalibe bi réalisé tu ko digganteem ak sëriñam dañuy naxante rek diggante jëkkër ak jabar sax daf cee am diggante jëkkër ak jabar diggante oustaz professeur bi ak élève bi muy jàngal sax daf yi am waronte daf ciy am diggante docteur bi ak ki feebar benn waaye daf ma nit lu am solo walla lu reelu bokk mun def feebar ñu yóbbu ko hôpital enterré ko garçon yi ame salle bi mu ni ko ban docteur moo ma amee mu ni ko loo ciy laaj mu ni ko dama ko soxla mu ni ko loo koy doyee mu ni ko wool ma ko rek mu ni waay bu ma la ko wooyee loo loo koy doyee lu ci sa yoon wan ma ko rek ñoom insisté ba mu indil ma ko ñu ànd ñëw taxaw ma ni ko abal ma dama bëgg a wax ak moom ne mu génn bàyyi nu fa nun ñaar ne ma xëcc sama kàttaabal génn lu am solo jox ko ni ko dama bëgg wér kët mun ma daa wér diggante doom ak baay warante sax def ci am léegi diggante mag ak rak diggante mbokk ak mbokkam nee na pour réaliser nag principe boobu te moo di at tadaamun al xaqiqi une solidarité réelle bu benn wuruj amul nee na nga xam ni war la ci nit ki ci diineem te dafa nekk lu nécessaire pour suñu bi ñuy dund nee na dafa war ñu jëmbat ci xolu ñiy ommat ak ñiy sàmm ak ci bakkanu ñépp ni engagement buy yóbbu nit mu am la mu bëgg ca la muy wut mënul ñàkk nee ndax loolu mooy def مما يجعل نسيج الأمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا wala boog wa kaljasadil waaxid ida shaka min utwun tadaaa lahu saairul jasadi bi sahari wal xuma yonent bi def ni jullit ak jullit dañoo war a mel na birig yi ñuy tabax miir bi ba ñu jàppoo nekk benn xamoo dara tax koo dëgër lu dul jàppoo gi rekk ba dalee ci kaw miir bi rek yow yaay gaañu waaye miir bi du ko wàññee dara mu ni walla boog julli yi dañu war a nekk comme benn yaram benn yaram bu ci benn cër feebaree rek cër yëpp feebar la ko bu sa bëñ mettee sa yaram yépp tey su sa loxo dee metti sa yaram yëpp tey su sa sa dënn mettee noonu lu metti sa cër yi rek daa yëg cër yëpp mu jeexital ci ñoom nee na jullit yi nag seen ànd noonu la war a mel lu dal benn jullit yëpp jullit yëpp yëgandoo ko nee na te bokkoo googu nag dafa laaj ñu jàppalente diggante individu xeet bi benn benn bi nit ki ci lekk ci naan ci solu ci dëkk ak beneen aajo bu mu doon ci aajo yi yooyu yëpp ñu nekk ci ñu jàppalente ci nee na ñu def coopération dimbalante gu dëggu entre les individus ci sentiment yi ci yëg-yëg yi ci mbég ci ci lor yépp nee na suñu borom wax na subhanahu wa taala wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan mu dellu wax moom yonent bi laa yuhibbu ahadukum xataa yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi mu dellu wax ne kenn ci yéen du tudd aji gëm lu dul la mu bëggal boppam la bëggal moroomam ndax ñi ngi koy doxal dafa am benn waay bu ñëw wax ma démb lu lu lu lu reelu nee na dafa am benn projet fii ci Sénégal ba mu demee ca ka nga xam ni moom la aju ca moom ñëw wax ci ak moom waa ji won ko ca ay jafeñ-jafeñ te nee na moom la mu doon wut ca waaje moom tam dafa am ku ko doon wut ca moom mu ñëw nag pour jël ko ci waa ji jaayaat ko kële ndax mu am ca dara mu ni bi ma ñëwee ma wax moom d'accord wuñ ci prix ndax prix bi mu ma wax dafa cher ma jéem jéem mu wàññi mu wàññi mu bañ mu ni ma demaat ànd ak ki ko doon wut ci man gis nga ne kooku dëkkul ci Sénégal beneen réew la dëkk ma ne ko kii moo bëgg mbir mi ci man mu ni ma daal manuma la ko jox ci lu dul boobu prix ma ni ko mais su ma ko ci jëndee euh, damay loru mantam te dama ci bëgg am dara neew mu bañ neew ma bàyyi neew mu dem neg ba ma bàyyi mu woolu waaja ñëw jaay ko ko ci lu gën a tuuti la ma ko doon proposé yi mel noonu dafa bari ci biir affaire yi nit ñi moo tax soo bëggee noppal sa bopp dellu ci yàlla rek yaakaar yàlla te bañ yaakaar nit temps boo yaakaaree nit yàlla bàyyi la ko ba xam dana la mën a daraam déet waaye temps boo yaakaaree yàlla yàlla moom xam na fi muy jaar yow ba sa aajo faj yonent bi wax ni ku jàppandalal sa mbokk lu jafe yàlla dana la jàppandal ëllëg ci dana la jàppandal ci àdduna ak ci àllaaxira te kii tax nu daje guddi gi jikko rekk la ko yàlla jàppe ba ba seedeel ko ko wallahu fi awni abdi ma daama al abdu fi awni axi yàlla nee na fekk yaa ngi dimbali sa mbokk ma di la dimbali yonent bi moo ko wax mu ni jullit mooy seetu moroomu jullitam man naa waxtaan ak alxaaj abdul aziz radiallahu anhu moom abdul aziz nit ñaari seetu la am bu mu ci ñàkk rekk mu feeñ ci dundam mu ni ma seetu bu jëkk bi moo di sa xel mi lay won lu rafet di la ko sant nga di ko def say bokk di ca kontaan seetu ñaareel bi sa bokk yi taxaw ci gannaaw di gis gisul di yëg loo yëgul di ci attirer sa attention nga di ko moytu mu ne ma yooyu ñaari seetu la nit am bii ci moom la nekk bii ci nit ñi la nekk mu ne ma boo ci ñàkk nag mu feeñ ci sa dund mu waxoon ma it bés ni ma gis nga nit ku su demee ba yëkkati loxo ndey joram ni kenn safuma su ko daanee leen na loxo càmmoñ ba ni man safu ma kenn mu ni benn waay dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yaa rasulallah ayu naasi ahabu ila allah wa ayu lacmaali ahabu allah yonent bi ni ko ahabu nnaasi ila llaahi anfauhum linnaasi wa ahabu al acmaali ila llaahi sururun tudxiluhu ala qalbi muslimin mu ni ko kan moom la yàlla gën a sopp ci jaamam yi ak ban jëf la yàlla gën a sopp ci jëf yi mu ni ko ki ëpp njariñ ci jaam yi kooku la yàlla gën a sopp ci jaamam yi mu ni ko ki nga xam ni dafay tàbbal mbég ci xolu mbokk jullitam boobu jëf la yàlla gën a sopp ci jëf yi mu mel na kon nag bu ñu seetee li xew ci àdduna bi yëpp ci ay jafeñ-jafeñ ci ay métit métit ñàkk royati yonent bi ci jikkoom ya rek sallallahu alayhi wa te yàlla taggewu ko lu dul jikko mu mel na kon nag bu ñu bëggee am li ñu bëgg il faut ñu dellu ci jikko yonent bi guddi yi ñuy daje importance bi mu am rek mooy fàttali gim ñuy fàttali di fàttali jëf yu baax yi yonent yu daan jëfante ak jaam yi di la fàttali jëf yu baax yi nga xam ni saxaaba yi daanañ koy jëfante ci seen diggante ci yiw di la fàttali jëf yu baax yi nga xam ni ku mel na góor gu tëdd gee tëdd Cheikh El Hadji Malick daana ko jëfanteeg jaam yi te wutu ci ngërëmu kenn ku du ngërmal yàlla bu yóbbee yow moom koy defanteel sax bu ko defante yow ne bu nga wax ko lu la neex mu mel na kon nag bu ñu bëggee li ci àdduna bi jeex dañuy dellu ci jikko yi ñu fekk ci mag ñi jikko yooyu boo demee ci tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijani yooyu la dajale def ko muy benn testement mu bàyyi ko taalibe Tijani fu ñu bëgg na saxaaba bay doon jëfante ci seen diggante yonent bi nekk ci seen kanam ñun tam di ko jëfante ci suñu diggante ka nekk ci suñu kanam nekk ci suñu kanam ñu di ko roy ngi koy wax yenn njaboot bërki dem rek man leen man ku daan dem ci mag ñi laa man leen mag ñi bari suma xarit lañu woon ci mag yi tariixa bi mag yi Seydi El yi mag yi Sëriñ Babacar yi man suma cee toog ak kenn ba mu tudd moroomam mas naa ci ànd ak kenn sax ñu dem ci benn barab ci benn dëj ka moom dëj ba moomu ko sax daf ko mu jéem a moom moom rek ndax góor gi ci boppam sax moo ko ci gën a yey ndax moo ndaw si faatu seen bàyyee bokk te moom wàllu tànt lay wax ak sama tànt mu toroxal ko toroxal ko kenn ku ne yaa ngi pare pour lekk waa ji mais góor gi ba te yënguwul mu waxee ba àggal chambre ci kawam mu ni patti rek mu bëgg continuer ma artu ko ma ne ko yow tam moo la mag te am na cër boo amul ndax moom imaamu ratib la te fa mu nekk te yow nekkoo ko te ëddëb ànd ak teggin moo la mag waaye góor gi moom waxul dara dafa toog ba yàgg rek mu dee ma ni ma sa waa ji daal moo lekki ganaar rek <laughs> moo lekki ganaar seen expression yu ndaw yooyu mi nga xam ne dafa ëmb lu bari nga xam ne dara du leen nëxal waaw jafar sa bopp ba dara du leen nëxal parce que nit gëdd la nga gëdd ko mais tane ko nit saaga la nga saaga ko taneetoo ko nit ñaan la loo am nga xañ ko ko taneetoo ko day nettali saxaaba yi benn xiif ñi may leen benn bopp xar wala bopp béy kuñ ko jox nga téye bu roccee loxoom nga ni diw moomu ca gën a yey buux ko ko te ñoom ñëpp xiif voilà loolu mooy ànd mais ànd boo xam ne yaa ngi tëroon teeg sa mbokk yaa ngay bëgg rek mu wax la li mu bëgg ba nga toroxal ko ba noppi nag jaay ko jaay ko yonent bi nee na yéen jullit yi la wax laa taxaasadu wala tadaabaru wala tabaagadu wa kunu ibadallahi ixwaana bu leen añaanente bu leen dëddoonte bu leen bañante mel na ngeen nekk ay jaamu yàlla nekk ay mbokk loolu changé ko indi ci këru diine yi maa ngi koy wax sànq ay mbokk man leen xam ngeen këru xaqiqa bu ñu seeni boroom ñàkkee fayda ba ñuy def ko këru aada ñàkk nañu muy lii sëriñ Babacar wax léegi benn baay dafa ma ni bërki démb est-ce que seen tariqa bi du ngeen ci dugal alal wallaahi ma ni ko dugal bu deme nan mu ne ah mu nekk rek tariqa boo xam ne day am alal man ko dugal nañ ko ci man ko Cheikh na Tijani radiyallahu anhu daf daan commerce di bay te loolu mooy boppu alal ma ne ko mbay mooy jur commerce commerce mooy jur industrie ma ne ko te def daan bay di commerce ma ne ko Seydina Alxaaji malik Si mii suñu roytooy radiyallaahu anhu dafa daan bay di commerce ma ne ko ama ma teg seen ma ne ko ama nag lii nit ñi wax léegi naan xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ma ne ko ah boobu nag ñun xamuñu ko waaw ah, ma ne ko xaalis bu ñuy dul liggéey xanaa di ko lijjanti xanaa mooy bu ñuul bi bopp bi ñuy weexal te yooyu yëpp roy ñu dul suñu nawle rek la waaw eh, roy ñu dul suñu nawle nee na Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiallahu anhu dafa amoon ay missionnaire sax yu mu doon yebal ci taalibe yi di leen xiir ci liggéey di leen digal ñu def solidarité ni mu waree diggante Tijaan ak moroom ma ay nit ñi war a mbagg te defe naa ni ci ñi xaw a am tuuti âge te fekke dund Sëñ Babacar Si ndax ba mu fi jógee léegi demee cinquante cinquante xaw ma cinquante trois ans bu nit ñi masaan ñëw juróomi point rekk la leen di wax seen diine faram ko ba mu teer mu ni seen tariq wax leen lan mooy tariq Cheikh Ahmed Tijani ak lan moo ko tax a jóg ak lan day def ci bakkan lu mu teg seen métier lu mu cay teg seeni dayre dayre mu wax leen li taxoon ñu sos ko ak ni ko nit ñi yàqe dafa bëggoon solidarité am entre les talibés ñu ñuy def ko moyen moyen d'exploitation keesu daayira danay wax toujours dayre yi ni leen keesu daayira sëriñ bi moomu ko dayre bi moo ko moom solidarité la ku ci am ordonnance te amoo ko jënde ñu din ci kees gi dimbale la ku ci am ngénte te amoo loo jënde xar te lott moo la ko teg ñu dindi ci kees gi dimbale la kuñ ci tàggee sa mbokk fu sori te amoo paas ñu dindi ci kees gi dimbale yu mel noonu dimbalante boobu moo taxoon mu ni ñu créer daayira pour solidarité mën a am suñu diggante ñun nag ñu mujj ko def moyen d'exploitation ku nekk yaa ngay formé daayira cotisé jël genn wàll ga def ci sa poche jël genn wàll ga joxi sëriñ bi ngeen di wokkalante gannaaw nee na mag ñi yaroo ci keppaaram wala mag ñi yaroo ci keppaaru Seydil Hadji Malick kenn ku ci nekk soo toggee moom daf lay wax ci moroomum ngëneel bu tax nga gën a ko ko kenn ku ne def naan sa moroom moo ma gën te loolu moo baax kenn ku nekk ci ñun da nga war a fexe ba defe ni sa mbokk moo la moo la gën والله وهو طائه فكم فاسد الأضحى بي وهو صالح وكم باطل والله بي وهو طائع انت ببومي رسول لأسرار المنافق فاضح أبان الهدى فالحق أبلج وادح أسان الورى فالعيش حلو مهنأ فحدارة ما بعدها من مذهب وكفاية في نفسها وقوام لولا النبوة منك والوحي الذي سلكت بنهج سبيل الأقوام فأتى بي موسى بألواح سمت فغدا بإسرائيل في لزام وروى بي عيسى المسيح وحوله زمر بأوساط الرجال كرام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 أو منكر تلهو به الأصنام وهناك أطيب ما يكون حلال عقلا وأخبث ما يكون حرام الحادثات وما بها من حكمة وتنوب الأواب والأعوام وتصرفات الإله القادر إذ لا يفي بالحادثات كلامه فاجعل من الأشياء حظك خبرة بتفكر يدنو بالإمام ما منت سقراط والملأ الأولى تبعوه إلا غربة فحمامه وكذاك أفلتون في آرائه من نقد حرره ولا الإبرام من لم يعد محمد في علمي من لم يعد محمدا في علمه فالعلم في خسارة وملام من لم يعد محمدا في علمه فالعلم في خسارة وملام حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالته فمن شك فيه فهو حلف الضلالة أفي الحق شك بعد ألف الدلالة تقدم ذكر مدى الدار يقر إن أنت بكيم نبي عظيم القدر بالحق مرسل يا للبه قال بي مذكر طفلا وينهلو su ko defee nag kon fa huwa ala wa akmaloon mooy aminun li irshadil ibaadi mu ahalo mooy xabibun bi asraaril qulubi munabbaon أفاد الندى فيضا وأعمل سعدة فصاص بذاك الخلق liinan wa shiddatan fa yaa habada minu liman shaa umdatan imaamun li rusulillahi bad'an wa awdatan yenen bi bihi yuxtamu dikrul jamilu wa yubda'u makka yaa leen gën njool makka yaa leen ala ahmadi min rabbi salawaatu sallallahu alayhi wa sallam ala ahmadin min rabbi salawaatuhu laqad azamat fi xalqi barakaatuhu sadduha mojizatu sallallahu alayhi wa sallam sang bee ca madina barayinu la tanqadi wahibatu wa ayatu shuhbun wa anmul wo suhbu kooku mooy sayyiduna Muhammad rasulullah mooy nabiyun azimul qadri ah. bil haqqi mursalo yonen bi يعل بي متكاين طفلا وينحل فلله منه فهو أعلى وأكمل ينين به أمين لإرشاد العباد مؤهل حبيب بأسرار القلوب منبأ هدى أنفسا دلت عن الرشد فاتدت دل مكال جن سبوت إلى الدنيا وظل بلا يصبؤ وغرك منها سلم باطن والحرب فالدرها والشرق لا يخر بك الغرب جسم بيسرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراكه الترف والقلب أليس الذي حاد المفاخر والأولى بما نس من آي الكتاب وما تلا وأن يدانا في المكان الذي ابتلاه أتم الورى جاها وأبهرهم حلا له المدح يجلى والشفاعة تخبى نبي عظيم القدر بالحق مرسل ينن به يعلم به مذ كان طفلا وينحل لله منه وهو على وهو babu yónneen mooy aminun li irshadil ibaadi mu ahlu mooy xabibun bi asraril qulubi munaba ka demee na kon fa tabarakallahu nee na xakim ba dafa wax ne man de sama mbokk yëpp ñu gën ixwaani kulluhum xayrun minni qiila kayfa dalik mu ne parce que ñoom ñëpp nangu nañ ma gën leen ñoo ma gën koo xam ni dangaa nangu ma gën la yaa ma gën nee na Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu dénk ñu ñun taalibe yi ne aleykum bil muhaafadati ala sadaqat nee yow taalibe tijaan bi na ngay sarxe boo amee loo sarxe doonte benn mburu la sax nga jox ko taalibe yi jàng ca daa ja te amuñu ndékki wala silmaxa say dem te amagul lu mu ndekkee ak noo ko mën a defe daal fi kulli yawmin wa laylatin ndegam man nga ko guddi ak bëccëg soo ko mënoon nga def ko benn yoon nee na di jokk seenu bokk ci loo xam ni dafay teeyal xol di bij ji cofeel nee na nemmiku xaalam walla nga romb ko nuyu ko ay ndénkaane rekk la yu mu wax ñun taalibe yi mu ne na moytu noonoonteeg seeni bokk mu ne na moytu gëddanteeg seen way jur moo tax mu boole ci churuti tariqaam teral sa ñaari way jur soo leen dul teral rek bokkoo ci tariqam nee na lépp loo xam ne dafay bijji mbañeel ci sa xoli bokki taalibe bu ko def nee bul di gëstu seen awra maanaam seeni ayib bëgg a xam ku ne lu mu ayib la nga denc ko pour bése ngay ñëw rekk nga wax ko ko nee képp koo xam da ngay def loolu yàlla dana la gàccal yow tam dana xotti sa awra xotti sa awray doom sa gannaaw kenn toppatoo awra taalibe ku ne la mu làqule bañ kenn xam ko nga fexe ba xam ko te boo ko xamee nga nga wax ko nee na yàlla dana xotti sa awra xotti sa awra doom sa gannaaw nee nangeen na ngeen baril jéggalante ci koo xam ni dafa def ay rëcc rëcc ngeen jëllale yenn yu amul yu solo jéggale jëllale loolu sa digganteeg jullit yëpp la nee na waaye nag la gën a feddaliku sa digganteek sa mbokku taalibe ci tariqa bi nee na ku jéggal sa mbokku taalibe rëcc rëccam yàlla jéggal rëcc yu bari ëllëg nee na koo xam ne dafa def rëcc rëcc ci sa wàll dellu si jéggalu la joxe ngàntam wane ni dafa juum nanga ko nangul nangul ko ngàntam parce nangu ngànt ci sunna yonent bi la bokk nee na na leen di toloreel ndax yow tam yàlla toloreel la nee na kii yées ci mbokk yi ca yàlla yonent ba ko wax de man laa yaqbalu uzran ku dul nangu ngant nee na ngeen fàttaliku waxu yàlla ci alquran wa saariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ard uiddat lilmuttaqin alladina yunfiquuna fi lsarai wa والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين leen na ngeen jëkkante jéem ci seen njéggalu boroom ngeen jëkkante jëm ci àjjanaam ji nga xam ni moo gën a yaatu asamaan ak suuf nga xam ni ni mu ko pareel mooy ñi ko ragal te mooy ñi nga xam ni dañuy dundule seen alal ci bu jàmm amee bu amul yépp ak ñi nga xam ni dañuy nëbbu seen mer ba kenn du ko xam am na ñoo xam ne loolu leen def fi saati rek ñu daldi fatfati te pourtant man nga ko dindi ñi nëbbu mer di jéggale ak ñi nga xam ni dañuy rafetal alkaazimiin alxayza wal aafiina an innaas wallaahu yuhibbul muhsiniin ñu ni su zafanaat moo ko defoon ba ko jaamam ba tooña dóor ko satali ci bopp mu xool ko fas yéene fayu mu ni ko ah, mu fàttali ko aaya ba alkaasimin alxayza mu ni ko kasamtu xayzi nëbb naa sama mar mu ni ko wal aafina an innaasi mu ni ko afawtu anka mu ni ko wallahu yuhibbul muhsinin mu ni ko goreel naa la Cheikh Ahmed Tidiane yi nee na radiallahu anhu na ngeen di négliger nit ñu bon ñi xam ne lu bon la ñuy wax lu bon la ñuy def ñooñu bu leen faale na nga leen négliger bu leen jox itte li ñuy indi ci ay ci coow ci fen ci sos yooyu ñu négligé leen bàyyi leen fële nee na nga nekk yow taalibe tijaan bi di jéggale te nga am yu bari yooyu dépassé nee na sa mbokk yi nga bokkal tariqa bi da nga leen di labiré waaye labiré gi it nga def ko ci ndànk ak ci nooy ak ci siyaasa nga bañ koo def ci lu dul mbañeel nga bañ koo def ci lu dul soxor nee na ñi nga xam ni ñoo la jiitu ci tariqa bi di ay muqaddam am lijaaza te amagoo ko yow nanga leen di topp ak ñila jox werd ña fekk ka la ko jox mi ngi lay digal yiw di la tere lu dul noona te nga gis ko bu ñaari taalibe amee diggante mu sol dàll di ko di ca jéem a dox ndax ñu nekkaat benn lu am solo la fexe sa ñaari mbokku taalibe am diggante nga dox ba ñu nekkaat benn yoolam kenn xamul nu mu toll te mas naa fekkee sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu fii ci saal bi ci suuf muy jubale ñaari muqaddam yu amoon réer réer Pa Mbay Sàll toll ci fenêtre bi ni ko kàbbar nañu mu ni ko maa ngi ci julli ndax maa ci islaahu daatil bayni ndax maa ngi yéwénale ñaari jullit yu teqali ko nga xam ne kon yoolam réy na nee na su safara ay tàkkee diggante taalibe yi nanga nga bokk ci ñey jëkka dem pour fay ko te fay ga koy fay bu ci jublu dara lu dul ngir yàlla lu dul am ngërëmal yàlla waaye doo ko def fay pour bëgg ñu ne diw moo fayoon ay wa amoon ca kees wala diw moo amoon fayoon ay ba amoon ci tingit da koy def rek ngir yàlla nee na képp koo gis muy dox diggante taalibe yi di leen teqale di leen rambaaje na nga ko na ko na ko ko tere waaye boo koy jàjj itam na nga ko jàjj ci ndànk ak wax ju nooy ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni mu ngi feddal ci téere tariqa bi te noo ñëw nag dugg ci mbiru jàmbur mbiru jàmbur nag Seydi Xaaj Malik radiallahu anhu dafa demoon abonné ci journal officiel jox ko góor gi aadamaloo moo ko koy jàngal su jullee suba ci jàkka ji ba wasifa ba noppi ba def yenni awraatam mu génn nag doxantu ba àgg ca fenêtre am fëggu ko boobu góor gi instituteur principal la nekk fii di jàngale bu ko fëggee mu ubbi mu ni ko lu journal bi wax góor gi seet la ko ca concerné mu ni ko ah lii ci concert de mooy lii lii lii bu waxee bàggal mu ni ko waa kañ ku nekk ci réewum jàmbur da ngay xam la mu bëgg ak la mu bañ waaye ku nekk ci tariqab jàmbur war ngaa góor góorlu ba xam tariqa ba la mu bëgg ak la mu bañ ndax nga mën na jariñoo njariñ yi ci biir tariqa bi surtout tariqa ci Ahmed Tijani ëpp na tariqa rénovation la ci lislaam ndax ba lislaam demee ba tëdd ba fas yéene anéantir ci la ko waaw cheikh jox yonent bi jox cheikh waaw te bañ ko laajee moom cheikh jawharatul kamal ak salatul fatiha bu ci gën kawe Mouhamadul Machi moo ko laaj daf ko wax rek ko ah defe naa ni salaatul fatiha moo war a gën kawe ndax jawharatul kamal yonent bi moom ko dicté salaatul fatiha nag ca xadara ba lay jóge ci page yu leer ñu indil ma ko xanaa kon ci yàlla la jóge booba tariqa nag ku ñëw bokk jot dangay góor góorgóorlu ba xam la mu bëgg ak la mu bañ la mu bëgg nga di ko def la mu bañ nga di ko moytandiku nee moo tax yéen mbokk taalibe yi ñu bokkal tarixa bi te ngeen adhéré wu ci école Cheikh El Hadj ci pas-pas ci cofeel ci tarbiya ci suluk ngi leen di woo ngeen jàpp principe bu al islam yu gën a kawe wax naa ko benn kilifa bu yàggul def ma ni est-ce du ngeen wootewaat ci niveau mondial xamalaat nit ñi lan mooy tasawuf al islaam yi ma ni ko ñu ngi koy def di ma ne ko tasawuful islaam yi ma ne ko ñett rek la ma ne ko xam-xam d'abord ma ne ko kenn mënul nekk suufi yu te amoo xam-xam wala boog daa sànq ñëpp ña la topp ma ne ko fa nga xam ilmu shariati bala ngaa xam ilmul xaqiqati ma ne ko ba ca des di jaamu yàlla ci niiw ba mu gën a kawee ma ne ko defar sa jikko ma ne ko jeex na ma ne ko yi ci des yëpp nag yi ci nit ñi dugal rek mbubb yu rëy yeeg kurus yu guddi yeeg xemmem li ci loxo taalibe yeeg yooyu yëpp noo ko ci dugal bokk ci mbokk ci de ñett yooyu dong la xam-xam jaamu yàlla ci niw bu mu gën booy jaamu yàlla nga def ko niw bu mu gën a kawe ndax yonent bi da ci benn xadis ni da gis jullit bu julli ba noppi nga jël julli ko ak laafu yoo gën a gis jullit bu julli ba noppi nga jël julli ga posé ko ak jabalu uxut julli ga gën a diis jabalu uxut ñooñu bokk ñu niwa buñ jullee te julli nag dafa for dafa nekk lu am am solo jaamu yi moo ci gën a for moo tax boo koy def dafa am façon bu kawe boo koy def waaye bu ko defee ni mu la neexee rek nee na dafa laaj salabatul aqida pas bu dëgër ak volonté bu dëggu ak dogu nee na ak yóbbaloo lu la mën a jàppandi ci xam tariqa bi ak am connaissance ak am culture boole ci culture nag boo amul culture da ngay mujj rek maanaam day tali loolu ne bi ci des nag yi fi mag ñi bàyyi woon rek taamirul masajidi wa zawaya bi salaati wa zikri wa tasbih dundal yi ak zawaya yi loo dundali julli ak zikkar ak tasbih ngeen yaatal seen seentiiru jëf ci biir seen dawaayir yi ngeen dëkk li taxoon ñu ñu santaane ko te moo di yar école booy jànge sa diine boo ñëwee ci daayira bi benn ustaas jóg dafa la démonstration ci njàpp ci laab wax na la ahkaamu tahaara ak niñ ko bëggee parce que am ñoo xam dañuy foye làpp te mën a am benn jaam bu yàlla nangu te sa làpp matul bu ko defee ustaas boobu dañuy jóg xamal la ko nga xam ko te doo ko laaj ndax wolof walla doomu aadama sax moo mel noonu dafa am yu élémentaire yoo xam ne du ko toppatoo ba xam ko su àggee ci benn niveau bi nag dootu ko bëgg a laaj waaye buñ ko waxtaanee ci daayira bi dana ko xam muy sutura te lislaam diine sutura la su ëllëgee ñu wax la ci importance bi mu am wax na la laab importance bi mu am wax la julli importance bi mu am lu tax nga di ko def boo koy def na sa melokaan fan nga war a toll bépp événement bu xew ci lislaam bu jotee man ngeen ko waxtaanee ci daayira bi ñu xam lu tax loolu yu élémentaire la mais yu yu nit ñi réere la te danga koy xam sax ndax léeg-léeg nga waxtaan ko nit dab la ni la ah man de maa ngi lay sant ndax nag wax dëgg yàlla xàmmewu ma ko woon noonu su ko defee nag kon nga yaatal sa sentiru jëf ci mbokkook sa mbokk ak def ko àndandoo mu def la àndandoo yooyu daal ci gàttal moom rek laa doon teg ci waxu sëriñ bi moom moom gàmmoom moom la sëriñ bi ni woon naa ànd ak moom waaye moom toujours mi ngi rejeté li muy rejeté nag bu yeboo ñeme ko rek ndax nun ñi daal amatuñu solo te yéen lañuy bëgg ngeen jël xamu ni ñu koy waxee bâton de pèlerin bi yéen la su ngeen yeboo ñem ko dëgg la fu ñu toog day daldi di xat pour yéen waaye su ma la installé woon demit du ma barkeelu ci sa waxtaan ñu sant la d'abord ci sa taxawaay ci kër gi sa taxawaay ci tariqa bi sa taxawaay ci diine ji sa xorma bi nga ñu sedd loolu ñun ñëpp yëg nañ ko bu xorma doon ëpp ñun la ëpp na yal yàlla ormaal adduna ak sa barke maam eh, ngeen góorgóorlu ci ni nu ko sëriñ bi waxe toujours dañuy wax ah wax leen nit ñi ñu muñ nañu muñ dañuy dénk toujours ñu muñ parce que ku muñul doo dem te nit ki bu fekkee lu ko naqari mu wax ko du ko muñ bu yàggee yàlla yàlla jéppi ko a sa xol su muñ dootu fa am kon nag ngeen di muñ di muñalante ay di muñ asabru la yati illa bil xayri yonent bi moo ko wax nee na muñ du indi lu dul yiw te bari na gàllankoor bu gàllankoor nit ci àddunaam ma ñàkk muñ moo ko ko teg moo ko teg su ko defee na kon nu bàyyante xel ci loolu eh, bu nu dajee fii guddi gàmm bu nu waxtaan waxtaanee jikko yi fi yonent bi bàyyi lu ñuy waxtaane bu ñu waxtaanee xare yi jikko ya mu amoon ca xare ba tax ñu di ko waxtaane ak saxaabaam ya nañ ko doon solidariser nañ ko doon ànd ak moom di défendre dëggu yàlla ak dëggu yàlla défendre ko li mu laaj bu dee leneen noonu bu dee leneen noonu su ko defee na kon euh, ñu bokk ni munu ko waxee ku koy dimbali nanga ko dimbali ci nit ñi nekk benn bépp kàddu buy tax sa digganteek sa mbokk ñagas walla ngeen sànnente kàddu bu ko wax ku nekk ak sa façon moom boobu mooy façon kon nag lim ñu woo ci dimbalante nekk benn nañ ko ci fekk nun ñëpp ndax waxtaan ak la neex boroom kër te yàlla dogal na moo fi toog toogaay yi mag ñi ku bëgg baax na ku bëggul sa affaire la waaye moo ko fi tooge bu waxee nu def bu teree nu bàyyi bu digleen def bu teree nu bàyyi loolu moo dox suñu diggante ak moom su ko defee kon nag yéen ci seen bopp ngeen taxawante dimbalante ndax suñu doolee mën a dellu si mën a dëgëraat mi ngi fi sax waaye pàcc pàcc yi dafa bari te pàcc pàcc bu bari ci mbooloo rek néew doolee ñëw kon nañu ànd ñu ñëpp nekk benn bokk ndey bokk bay doxal tarixa Cheikh naan Tijaani bii loolu ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel gannaaw loolu itam daa nañu def bu daje fii am na ci njabootu Cheikh Omarul Fuuti radiyallahu anhu ñu fiy teew ca dundu Sëriñ Babacar la woon wala sax Alxaaji Malik ak waa kër Cheikh bu ñu ñëwee bu ñu gàmmoo ba fajar mu ni nañ leen jox seen hadiya te buleen leen sarax loolu bi mu fi jógee moom Maodo sëñ kër Si daan ko def bi mu fi jógee ba léegi ñu ngi koy def fii ci jàkka ji bu ñu waxtaanee ba waxtaan wi di bëgg teer ñu laajal leen jox leen ko muy seen hadiya bu jóge ci xadaratu malikiya ak tivaouane lu waaye am rek nga joxe ko waaye nag nga xam seen xaq ak seen dayo nga jox leen ko ca boo ba tolluwaay te bañ mel na rek kuy sarax benn silmaxa bu yelwaan ca buntu kër ga silma silmaxa sax ku koy jox danga koy jox lu am solo lu mën a faj soxlaam ndax moom mi léeg-léeg mu sarax nit mu tiit ba ko waxee mu ne ma kuy sarax nit danga koy sarax lu faj soxlaam yow itam boo defee nag kon tabaarakallahu ñu gërëm ñépp ndokkeel ñëpp masawu ñëpp ci seen su ñu sañoon bu ngeen ñëwee Tiwaawan kenn du tumuranke ci dara du ci dëkkuwaay du ci dalukaay du ci lekk du ci naan da ngeen fekk lépp nu préparé ko tegal leen di leen nekk da ngeen di ñëw yendu du ngeen am place yu doy ju ngeen am néeg yu yaatu ah yooyu yëpp nag jamono rek la waaye jamono ngi ñëw yàlla mën na def yu ci bari faju su mu bokkee def lii nu wax nekk benn rek yooyu yëpp mën nañ koo faj ndànk-ndànk te coow du ci bari ko defee nag ñu jégalu leen suñu baa ngi leen di jégalu di leen ndokkeel di leen masow di leen ñaanal yàlla yéen itam bu leen ko fàtte ci ñaan ñu ñaane rek di ko sànninte seen ñaan danañ jëriñ suñ ñaan dañ leen jariñ waaw ñu bañ a fàttente di ñaan te bu ñu fi jógee nag lu ñu man ci nekk benn ñu def ko lu ñu man ci liggéeyal tariqa bi ñu def ko ndax liggéeyal tariqa Cheikh Ahmed Tidiane mooy liggéeyal diine l'islam ndax génnul diine fen au dafa ñëw confirmer li nga nekk ci diine la confirmer bu mu gën a dëgër cheikh noonu la tërale tariqaam génnul diine fen su ko defee na kon ñu gërëm ñëpp gërëm gan ñi ci seen coono voyage seen séjour te condition ya matul ñépp ñu ngi leen di jéggalu ñu ngi gërëm Tiwaawan jigéen ñeeg góor ñi génn seeni néeg jox ko gan ñi diiran fi nit ñi nekk bu gàmm jubee léegi benn doomu Tiwaawan dootul am jàmm mu ngay bale ma ngay raxas mu ngay tabax mu ngay yaatal ah ngir rek teeru ganu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yal na leen yàlla fay ñu ngi gërëm itam la gouvernement di Sénégal lépp loo xam ni war na ko def ci gàmm gi def na ko ci liggéeyaat yenn mbedd yi eh, am na programme vaste bu mun a won ci Tiwaawan ni gannaaw gàmm danañ ko commencé ñëwoon nañ sax di ko commencé si waaye man maa leen ni gàmmu gi li ci des bariwul su ngeen fi commencé di gas ak di defar ay tali dafay gêner nit ñi te du ngeen ko mën a yeggale fii ak gàmmu kon nag may leen nu ba ñu gàmmu ba noppi bu ngeen ñëwee ngeen commencé continuer seen liggéey mais loolu tax ñu bàyyil lañ bëggoon def ni suñu gàmmoo danañ ko ñëw àggale si ñu di leen ko ñaan nag ndax itam at yi passé léeg-léeg ñu dig ñu lëf rek ni bu gàmmu passé ñu ñëw mottali ko fa nga leen di mujje gisee ba gàmmu joti loolu nag bii yoon ni ñu ko présenté ak ni ñu ko doxale yaakaar nañ ne du mel noonu waaw yaakaar nañ ni bu gàmm gi passé rek dañuy ñëw incha allahu pour ko def ko ni mu ware su ko defee nag bu boobaa xëy na mbir yi dana gën a jàppandi waaw dana gën a jàppandi su ko defee na kon ñu gërëm leen ci liñ fi jot def eh, ak taxawaay yiñ fi jote taxawaay yépp ñu ngi leen koy gërëm di leen ñaanal ñoom itam yal na seen mbir gën a dëgër gën a jaar yoon tabaarakallahu sëriñ bi mu ngi nuyu mboolem kilifa diine yi ci senegal waaw yii la ko dale ca mbokkam mu baax mi di Maam Bu maa moom nekkoon feeg Cheikh El Hadj Malick mbokkam mu baax ma ca Touba sëñ Sidi Muxtaar lu ne ci gàmm gi yónnee na ko fi ci ay xeeti ndimal ci ay xeeti nag ay xeeti gëléem lu ne ñu gërëm ko ñaanal ko mu ngi nuyu mbokkam ma ca Yoof Abdoulaye Thiaw Laye di nuyu mbokkam ma ca Kaolack ci Cheikh Ahmed Tidiane Niass ba ca waa kër alxaaji Abdou Kane ba ci waa kër alxaaji Ahmad Dem ñooy ñëpp mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di ndokkeel waa kër alxaaji Rawaan Ngom di ndokkeel waa kër Cerno Baro di ko wàññi Ahmed Tidiane ba bu Madina Gunaas ak rakkam Cheikh Ahmed Tidiane yi Abdoul Aziz ñëwoon na fii ñoom ñëpp tabarkalla ñu ngi leen di eh, waaw suñu mbokk yi ci Thiès kër maam alxaaji ahmad njëgéen sëriñ muniiru tabarakallahu yónni na fii euh, sëriñ amadu mu ñëw fii yónni ñoom ñëpp ñëw nañ fi ndokkeel suñu waaw sëriñ moustapha ñoom ñëpp yónnee nañ fi ay ndaw ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal li ñuy ñaanal suñu bopp te moo di yiwu àdduna ak wàllaxira euh, di gërëm ñëpp nag góor ak jigéen ndaw mag waaw ji gërëm service d'ordre bi nga xam ne ñoo fi nekk ay gendarme ay policier ñëw nekk fi ànd ak ñun ñu ngi gërëm média yi média yëpp nag ñëw nañu def nañ seen service ni mu ware les journalistes noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla lañu nekk yàlla na yokk ci lu baax hmm? Hmm? waaw euh, ñuy jërim labbe sek bi nga xam ne ñëwoon na pour représenter fi le cardinal moom itam ñu ngi koy gërëm di gërëm cardinal bi ñoo ko bokk yàlla dafa dogal tuuti suñu seet seen suñuy feet ak seen feet daje waaw juddu yonti yàlla Muhammad ak junti yonti yàlla Isa tuuti mu daje fan yu néew rek la waaye ñëw nañ fi tey fi la ñuy yendu loolu lu ama am solo la Sénégal yàlla moo ko def réewu jàmm la ku ko bëgg def réewu ay da ngay sonn rek mais jàmm la xam te ci jàmm lañuy dund incha allah ba faw ndax mag ñu baax ñi fi nekkoon ñoo ko lawraataali ci seen seeni lawraat pour Sénégal nekk réewu jàmm waaw te fekk jàkka yi nasiril xaq bil xaq mi ngi fay jub suba ngoon jàmm rek mooy am Sénégal kooku Cheikh wax na ko Seydil Hadji wax na ko ñoom ñëpp bind nañ ko su ko defee kon nag ñu góor góorlu rek dundal jàkk yi dundal malaan wasifa yi topp li ñu fi Maodo bàyyi loon yu bees yi ñuy indi commencé indi nag ñu koy indi ñu bàyyi kook ñoom ndax sëñ Babacar Si daf daan wax ni soo waree safasu naaru góor ba noppi keneen ku indi naaru góor bu wax ja bari da ko naan seetal ki waragul man war naa ba noppi mu jeex mu jeex nee na bu indee fasu par nag nga gën a am lay <laughs> kon naan mi ma war moo gën moo gën waaye bu fa nekk di xuloo waaw boo xuloo rek ubbil ko bunt waaye da nga ko naan seet jàllal fii ci gannaaw da fi gis ko waragul man war naa ba noppi naaru góor nga miin fekk nga ma ci naaru góor kay te ak benn nit ñemewul taxaw fi Sénégal ni li Alaaji Malik tëral du dëgg kenn ñemewu ko wala la diw tëral tëralu ko gën kenn ñemewu ko te ku ci wax dama naan defal consensus rek wooteel nu daje nga génn say lay ñu génn suñu lay waaye fa nga koy génn gëj a waxe de xanaa dangay gis keneen nag di ko muqami ci ruq yeeg waaw maanaa leen ko am na jàkk yoo xam léegi dañuy ragale wasifa ndax ay nit ñi ñu ñëw di leen wax nii laa laa man leen waaw yow yaa ngi woon tiw ilimaan ju amul xam-xam dafay ragal bandi bu jàng waaw su ko defee ñëw dina la bàyyi loola nga nekkoon ngay ngay yàccaaral da ngay yow ñu wuti li gën alxaaji Malik kaamil la fi fekk mu teg ko fële indi akmal xasan la fi fekk mu teg ko fële indi ahsan fadil la fi fekk teg ko fële indi afdal tànn leen lu ne la ci gën tëddal la woon prévu diw lii la ci wax diw lii la ci wax waaye lañu ñu gën a tàmm yonent bu jëfe woon ko nii la waaw nga jékki-jékki benn nit bu jóge fu kenn xamul jëli fa ay yëfam bëgg laa bàyyi looloo la ngay yaccaral ñàkk fayda yoo koy bàyyi ko mu dem ak fasu naaru góoram na seeti ki waragul yow ñëw nga ba alaaj maa yi jox na la façon naaru góor yu gën ci façon naaru góor yi waaw looy wute ci beneen doy di la doy di la waaw dafa amoon bu ko benn taalibeem bu ñëw ni ko dama seeti woon sëriñ diw mu ne la fa doon wut Maodo wax ko loo ko fa doon wuti mu ko dama doon seen ndax mi ngi ci dëggam déet mu ne ko waaw boo ko fekkoon ci dëgg nooy def dëgg gi ma la jox mu yeccar mu wuyu ma soo ko fekkoon ci dëgg nooy def dëgg ma la ca koy sànni te jox naa ne dëgg ba noppi fekk ko ci dëggam ga wala da ko bàyyeeg dëggam ga te muy dëgg hadaam fu seen dallat ani rushdi fëtëdët waaye ku sopp Seydil Hadj Malick defel ni ñu màggal ko fa saamat wa qaamat laylaha bi tahajjudi fa saarat sawaya fi quraha jamiiha mila am bi fawjin raakiina wa sujjadi fajar timis jàkkay déere fajar timis jàkkay déere hadratul juma allah waaw Sénégal loxo mam aas ci lu ko mooy gaal gi dootu salaatul faatiha saf la mu saf ka ko rekk la saf ku leneen jëlal sa yëf leeru maam aas du rax lëndëm nasiril xaqi dootu fay xaqi bil xaqi dootu fay talatil xaqi doy na lay dëgg du réer li mooy li aar li aswaati fi kulli yawmin wa laylatin dayu lada kulli zawaaya masjide kon wamal lii bi ixraaj alxaqaayiq naasixan wamal lii bi tadraas alkitaabi wa musnade wamal lii bi badli alfiqhi wa naxwi mantiqin bayaanin maaniha badim bi musnade wamal lii bi warshin bal junayde wal ashare wa man li bi adabin wa darbil muadadi wa man li bi najmin fi nujumi wa musilin seydi alxaaji malik yaa sol usolan seydi alxaaji malik yaa sol arodan seydil xaaji malik si yaa ma sol siiratal badri miqwade waman lii nga defe na kon tabarakallahu naa loolu lépp nag lu ci nit tegati sax day soof defe nag kon gàmmu mbaaxeel euh, huit février seeni boroom ñu ngi koy yëgle euh, boo defee daal tabarkallah yooyu yëpp nag ñu bàyyi ci xel rek ndax boo li sëñ Babacar Si daan wax nee na boo doy dee da nga dem ba ñu xëbal la ci sa diine ba ngay defe ni li nga jàpp dafa amatul solo te fekk kanga nga dajeel moo amul solo yow nga gën koo ñàkk solo ko defee nag kon loolu yëpp ngeen bàyyi ci xel ku indi lu beesam daal moom matul xuloo waaw ñun daal war nañu fasu naaru góor ba noppi seetal ki war a góor waaw kay ki ko defee loolu yëpp ñu bàyyi ko xel waaye itam nag yëg nañ ci ay yàqu-yàqu yu ñuy am wax naa ko benn kilifa bu doon waxtaan yàggul mu ne ma est-ce du ngeen daje benn daje yéen tiijaan yi ci monde bi yëpp ma ne ko ah waaw loolu nag yaxtaaju ila tafkirin amiq wala ñu réfléchir ci profondément ndax tiijaan yi tam léegi dafa bari ay façon donc dafa bari ay façon ñii wane yàlla ngi ci ñi ngay joxe loo xam ne boo ko waxee yàgg ca yàlla man ko ñii ngi bay dorog te nit ci dëgg lañ ko teg sañ nañ ko pour financer seeni projet man ko ñooy ñëpp nag dañuy dañuy xool d'abord est-ce que dañ leen di teg fële wala dañ leen di woo boole leen ci man ko ay change de travail moo koy jiitu bu ko defee nag moom bi ci des am ñoo xam ne dañuy wax ni waaye benn benn wasifa la fi Cheikh Ba indi woon waay alaaji maay moo ma bëgg a sonal nit ñi indi ñaar eh, cheikh kay indi wu fi woon al wasifatul yawmiyya ndax wa dikru asri jumaati waaye mu nag ku man yi moo ma gënal di xaaji maalik ni moo ma gënal li cheikh nag maalik du ko yemaleeg dara moo tax mu indi wasifa suba ak ngoon kuy taalibeem te ñaani ci silsilaam da danga war di wasifa suba ak ngoon soo ci ñaanewul nag libre nga ndax Cheikh Omar mii sëriñam sax benn lay def benn lay def waaye moom pour buutal njabootum ngëneel gu gën a bari moo tax mu indi ñaari wasiba suba ak ngoon waaye am ñoo xam léegi ñu ngi lax si ni dañ koy combattre dañ koy combattre koo xam ni dawandool la yow ci lef wi waaw na koy xeeñe doo ko mën a xëy su ko defee yooyu yëpp ni ngeen bàyyi ci xel parce que nit yi ñu doy di rek lañu woyofal woyofal woyofal lu woyoful baaxul loolu xam ni tariqa cheikh du caaxaan du liñ fi jaar bokkul ci tariqa yi du tariqa rek ëpp na ko dafa jóg pour rénover waat suñu lislaam ba mu tolloog yu saxaaba yi waaw Cheikh tëral ko wàcc ko jox ko mag ñu doy na Alaaji Malik mag ñu doy na Cheikh Mahamadul Ghali mag ñu doy na Cheikh Omarul Fouti Ibrahima Rayahi Mouhamadul Hafidi Tijani Aliou Harazim Barada Mouhamadul Machri Aliou Tamasini et tant d'autres sol leen ba ñu fees mu bàyyi ko ci seen loxo dem muy diiru ko beeg si ji ñu bëgg ko comme foye ay xale yu ndaw waaw ka benn waaye nee na dafa am benn jàkk bu mu daan jullee foofu ci euh, Sacré Cœur mu ni mu demaat fa fekk dootuñu wasi fa mu la leen ñu ah xale yi dañoo ni xale yi mooy déedéet du ñu que xale yu baax yi kay ngi ci tariqa bi nag bis bu ne nga may ñaar fukk wala fanweer ñu bu dugg ci tariqa bi waaye xanaa xale yu bon yi ni mu bare léegi Dakar njaxas mi njaxas ak woote yu dul jeex ruq bu ne waaw di faye nit ñi rek di faye seen passeport yi ñi si des def ko modd modd wax naa ko kilifa gi ma ne waxtaan mu ni ma ndax fii nit ñaa ngi dugg ci tariqa bi ma ne ko waaw bu baax waaye nag ñetti façon lañu ma ni ko koo xam ni dafay toppandoo moroomam rek mu ñëw ni ko demoon naa Tiwaawan jël naa tariqa mu ne man bu dimanche ma dem kooku baax na waaye dafa toppandoo ma ne ko ak ki nga xam ne modd la ko def naan dañ ma invité hadratul jumaati sol mbub mu weex kurus gu weex mbaxana mu weex dàll weex tuura parfum <laughs> kooku madd la ko def tariqa bi ëpp na noonu nag yow waaye ba tey baax na ñuul na weex na moo tax ni ñuul na kukk <laughs> waaye itam nag ñu koy jéem a dellu ci pureté ba tuuti maa ngi fàttaliku bi ñu gënee nekk ndaw nekk ak góor gi Dakar suñ Babacar Si ajjuma ji jot ma ngay defee xadara ca euh, zawiya Seydi El Hadji su ngoonee ñoom alxaj Abdul Aziz ñooy ñëw escorté ko mu ànd ak ñoom ñu dem ca zawiya ba fa la ñuy def seen xadratu jumaati ñoom ñëpp bu ñu noppee muy waxtaan ba xaju guddi door a dellu si ci kër gi waaw léeg-léeg nga dégg benn nu sëñ Babacar la woon woon wasifa bi lu ci yàqu cheikh dana ko def man déet circonstance la woon dafa ubbi woon géewu wasifa ca kër ga ca ndar ca këram ca ndar am na ñuy ñëw di ca bokk si te rafetalu ñu wasifa mu am ñu leen di dàq góor gi ni déedéet bàyyi leen rek ñu ñëw rek bu yàggee daañ ko man wasifa moom lu ci yàqu Cheikh dana ko defal wasifa woowa waaye du wasifa yëpp nag ba tax dañ ci war a dëgg rek yàq wasifa yi déedéet yore sukkurus yaa ngi ci marché bi yaa ngi ci fu la neex yore sukkur jàng salaat fàtte jàng jawharatul kamal loolu loolu moom ah xam naa baax na de waaye daal nag am na bu ko gën nag nu ko seeni borom waxee ci téere yi daal jàpp ba sel toog moom quinze minutes rek mën nga ko def mu jeex man nga ci wasifa waaw boo boo boo boo boo yéexee wasifa am na ñoo xam ne seeti arabi ibnu saaya laazim ak wasifa daanaka def trois heures de temps ndax benn bennal ko rek bëgg yëpp mat trois heures de temps lazim ak wasif ñun xanaa bo boo gaawantoo xanaa nga def ko ci dix minutes ndegam da ko tudd moo yëpp dang ko tudd tudd bu wér boo defee yooyu yëpp ci redresser sa bopp ndànk-ndànk da ngay dem ba miin ko mu dootul nekk ci yow dara danga koy waaw nga defee nag kon ñu gën a góor góorlu rek gën a jàppaat suñu diine gën a jàppaat suñu tariqa gën a nekk benn gën a ji jéggalante di baalante waaw di dimbalante kenn ku nekk la nga mën a dimbalee sa morom nga dimbalee ko ko waaw bu gàmmu ñëwee nga ñëw gàmmu si Tiwaawan ndax fii la Alaaji Maalik woote woon te wax ni nag su ma sañoon ku may def moo koy def ku ma am daa ko fekke waaw la mu rof ci biir moo ko xam moo ko xam boo defee nag kon yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel rek jamono neexatul ama jot gi amatul nit ñi seen yi poosu diisatul waaye rek ndànk-ndànk ndànk-ndànk te kenn lu mu mënul loo man rek defal loo mënul bàyyi defee ngeen jàppante nekkaat benn yéen ñëpp tabarakallahu waaw lu leen jaaxal ngeen indi ko tiwaaw ngeen fi fekke sëñ Mbay Abdul Aziz ngeen dem ci moom ngeen fekkee sëñ Mbay Mansour ngeen fekkee Maodo Malick ngeen fekke keneen ngeen fekkee Cheikh Tidiane Mouhamadul Mansour ngeen fekkee Mansour Mouhamadul Moustapha ñëw leeral leen ko rek ngeen dellootu ci seen liggéey rek xam ne nag kenn moomu leen nag yàlla dong nga leen moom benn sëriñ moomu leen mooy wax leen loolu tey yàlla dong nga leen moom nga defee ngeen góorgóorlu rek nu bokk góor góorlu téyel ko seeni borom niñ nu ko joxe woon waaw ngeen li suñuy mbokk nuy seen mbokk rek waaw parce que diw sama taalibe la parce que naa koo dégg mu révolté ci moom sëñ Babacar Si te dañu nekk salle bu ndaw bi benn góor ñëw benn muqaddam xam naa ko indi benn waay ba max ko ñu ko kii sama taalibe la ñaanal ko ku baax la góor gi mu muñul deful dara mu de mu ni kii sama taalibe la kenn du ko wax kenn du ko wax loolu loolu ñàkki teggin la kii sama taalibe la kenn du ko wax doo naan sama mbokku taalibe la bokk moo tane ah, xultu xul yi mat kaw ni nit ñi daal dama defal ni waaw ñëw ci man man naa ma kii sama taalibe <laughs> waaw nag ñu moytu ko rek xam eh, nag yéen tam ki la jox werd waaw ah, dafa jottali rek dafa jottali bala nga jiital kenn ci kanamam jiital ko waaye nag mu ko def moom itam ni moo moom nag déedéet waaw may leen ñu tuuti rek ñu àggale may ñu tuuti rek ñu àggale may nu àggale tuuti may nu tuuti nu àggale bay leen bu ñu deen wax ngeen di dëgëre dëgëranteeg ñun bopp mu nettee noppil noppil leen dog wàññiwul dara waaye xam fa ngay doge dafay baax yi ñuy tere moom ngeen di def yi ñuy tere nit ñi li ma waxtaane léegi nga war ci jël la leçon moom nga def fat xamoo soo fuñ ci toll mais bàyyi leen loolu waaye <laughs> su ko defee waa mbaaxeel ñu ngi yëgle seen gàmmu samedi 8 février 2014 gàmmu annuel du feu de feu maam Tafsir Moussa Sarr moom ñu ngi yëgle seen gàmmu hmm. mbirum dafa sew de waaw Ndifif gàmmu Ndifif moom itam mi ngi koy def samedi bii di ñëw euh, nee nañu réception bi di heures la foofa ci Ndifif góor gi ma Lamine Sarr gàmmu Ndifif gàmmu pete warak

Hmm. Abdou uh, Gammu waaw Touba Gammu Toubacouta région de Fatick le 20 le 3 mai 2014 ouais. Gammu El Hadji Ousseynou Djité

voilà yooyu annonce moo fi ñëwoon gàmmu gànket le 12 avril ñu ngi koy yëgal ñëpp su ko defee nag kon tabarakallah waaw waaw kon jox ko seeni borom ana ñu ngi ci gannaaw looleen 400 Gamou Gadiaga le 8 avril hein